asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu mën a nekk. dellu soot nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax yi TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu di Modou Dieng Touba 28 Minam Deko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mu ngi jëm ci politiciens yi ak Touba ak Serigne Touba sax. xam ngeen ne fan yi bu ngeen ubbee télévision yeeg rajo yi li ñuy wax ci tuubaa ak politique bari na lool lool ba ci cérémonie officielle bu kas rajo bii sax dégg ngeen ñu wax ci poli diggante politiciens yi ak Touba ak Serigne Touba. loolu nag man ci laa bëgg a def benn taxaw seetlu boo xamante ni wax dëgg yàlla boo ko seetee da ngay wax ne li wolof yi wax ne bay ci say wóomi tànk ndax li ko waral politiciens yi nga xam ne ñu ngi dikk. te li waral coow li lépp mooy dikk bi fi Ousmane Sonko dikkoon ci semaine bi passé daanaka moo sulliwaat coow li waaye ku deltuwaat ginaar yi nga xam ne coowal politique ak ñàkke warme dëkk bi ak ak wax ju ju jaarul yoon ak wax ju tegginewul yàgg naa jib fii tey jibe ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy tudde ay politiciens ñu nekk fii ci dëkk bi boo ci delloo sax ba dellu ci da ngay dem ba ci ñi sant Mbàkke di politique da nga ciy dégg kàddu yoo xamante ni wax di yow mi taalibe wala yow mi dëkk Touba da ngay am kersa da ngay tuuti da ngay doyadi ci kaw sax boo wéetoon sax da ngay am kersa ci lii euh, du ngeen fàtte mukk ne fii ci politique sëriñ bi aaye na fi politique <coughs> ci biir dëkk bi ba ñi koy def ñëpp jamono yi Sëriñ Abdou Lahat ba ci jamono yëpp da ko fee aay woon képp ku koy def te mënu koo ñàkk bañ a def na nga dem ba ci bitib dëkk ba nga defe ko fa Euh, sëñ Sidi Muxtaar aaye ko fi sëñ Muntaxa mi ñun dem nañ fa mu def déclaration ni sëriñ bi nee na bu kenn politique yi ci biir dëkk bi loolu nag boo seetloo politiciens yi dem nañ ba bu du ngeen fàtte ci at yële ci ginnaaw ñu génn fi ab politicien rek dem na ba yëkkati fi kàddu yoo xamante ni di ko teg ci sëtub sëñ Tuubaa ba ca la ñu jël këram ñu toj ko te loola ki ko doon def fii la dëkkoon ni ab taalibe la ak yëpp yooyu du ngeen ko fàtte te yooyu yëpp li tax ñu koy sulluwaat nii dafa am mbir yoo xamante nii dafa jarut di bàyyi muy kii problème kenn du ko yar yaraat ko mu yar ko da koy yar ba mujj boo koy lijjanti doo xam fan ngay tàmbale kon problème bi fii la tàmbalee ci ci ñii fi nekk di ay politiciens ñenn ñi sant Mbàkke ñenn ñi di ay taalibe ndax bu ñu demee ba ñu sant Mbàkke mën a taxaw politique jaral leen ñuy sacrifice di di attaquer seen mbokk dem ba jël di wax wax ju ñaaw di ko teg ci seen mbokk nga mën a wax na diw sàngam diw juru ko diw sàngam diw juru ko àgg ba ci loolu man jàpp naa lii moo gën a garaaw yàq xam nga ay matériel mën nañ koo yàq ak ay tabax ak ay lu ne mën nañ koo yàq ñu amaat ko mais yàq aw askan yàq ay jikko loolu jàpp naa ne kenn du ko amaat te loolu ñu ngi dem fii ñoom ñii ci seen biir ñu ngi dem ba àgg ci loolu di waxante wax jooju te lu ko waral dara waral lu ko lu dul politique du xëccoo suuf du xëccoo daara du xëccoo euh, ab kaamil du xëccoo dara lu dul euh, li ñuy xëccoo mooy koom-koom àdduna ak parparo àdduna loolu moo tax ñuy àgg ba ci ku nekk mën a xëy di yàq sa mbokk di yàq tas sa mbokk di te te dara waralu ko lu dul alal te ki nga koy defal jaru ko koo xamante ni bala ëllëg dina fi jóge yow nga des fi liñ la defal ci barke ak liñ la defal ci teraanga amoo dara loo koy faye lu dul di yàq ñi nga xam ne ñoo bokk te yéen yéenu neen la ñoom rek ñoo koy defante te lii may wax du ewante du dara ku dellu ci archive yeeg ojo yi dégg ko fi du ngeen fàtte ca ginnaaw sëñ Abdou sama tam sëñ Samad bi jubale na fi ay jigéen ñaari jigéen yoo xamante ni ñoom ñëpp sëti sëñ Tuubaa la ñuy waxante wax joo xamante ni weñ wu ca dal tii te dara waralu ko du ne benn intérêt lañ doon xëccoo lu dul ci politique la lépp ci politique la loola nag ci politique la nit nag li ma am bu ko warmaalut defaru ko ñeneen ña ca des ña nga xam ne xamuñu warma duñ ko ko warmaal dañuy defe ne ñoo xamante ni seen mbiru àdduna yëpp ñàkke warma la ñàkke teggin wut alal bu buñ gisee yow mi nga yor sa yëf war koo warmaal war koo sagal warmaaloo ko ñoom dañ cay bég dañ cay occasionné wu sax dugg ci te yëpp am na ci dëkk bi bala laa dee jàpp nga dégg ñu dem ba assemblée ñuy dem di fa tudd sëñ Tuubaa turu sëñ Tuubaa lan la wuti assemblée ñu ko fay tudd di ko ci waate di ko di ca wax di wax nangam turu Touba ñu cay kaas ci kaas yoo xam ne te benn politicien boo xamante ni ba ci député yu nu fal amuñu luñ leen fale loo xamante ni luy tax Touba mu ñëw tuubaa ndax liñ fiy def président bu fi nekk la muy def Touba ci xalifa bi la koy jaaral benn député mënut wax ne man maa tax ba nu yokkal lii Touba maa tax ba procès bi Touba ñëw maa tax ba tëli bi maa tax déedéet lépp luñ fa def ci turu xalifa bi lañ koy jaare fu xalifa bi neex moo fay am tëli fu xalifa bi neex moo fa lu fi am rek ci turu xalifa bi la président bi doful xam na bu baax a baax ne lim fiy def du ko jaarale ci député du ko jaarale ci nangam kii tax mu def ko fu muy xalifa bi te xalifa bi sëñ Tuubaa la fi nekkal dégg nga sëñ mun taxaw wax na président Macky Sall ne ko bul jëflanteeg nit ñi jëflanteel ak borom dëkk bi borom dëkk bi mooy kan mooy sëñ Tuubaa kon yéen ñëw ñu yéen a war a wormaal sëñ Tuubaa bu nu dikkee bay nuy wax naa euh, taal nan mitin nan ca kii ba nu ca jumaa ja te loolu ku nekk xam ne ne du dëgg kenn mitin ci jumaa ja loolu benn murit mënu koo taxaw sax di ko di ko émancé di ko wax loolu bu amoon daanaka yow bañ koo fekk sax moo la gënal nga fekk ko ba noppi di ko répété naa taal nañ fay pono te yooyu yëpp dara amu ci ngay wax naa sa kilifa la bëgg di fi di wax te dara amul lu dul sa intérêt bopp rek a tax ngay wax wax ju ñaaw ji ngay wax. yoom ñoom ñii leen war a tàmbalee kuy wax ci ñoom wala bëgg ñu warmaal dëkk bi tàmbaleel ci ñii fi nekk. lu nekk la ni buñ toogee ci seen kii dañuy xasanteeg ak léeboonteeg biir bu rëy ak kii ci ti lay nekk ak kee keri xaskee kee di te loolu ñii lii ñuy wax benn àll kenn jógewut ca àll ba di ko wax kenn jógewut ca àll ba bërki Dembo Ndiaye di ngeen Moustapha Jaxate mi lu mu wax ne sëñ sëñ tuubaa la fa xew mooy rakk sëñ Muntaxa yu bokk ak moom di rakkam sëñ moom rëkk ñoo koy rëkk dafa nga ne loolu jaadu na dafa nga ne loolu baat yooyu am na war ma bu ñu demee ba di ko teg ci ay sëti sëñ Tuubaa di ko wax te wax jooju dara du ci dëgg di waxal loo xamante li ngay wax xamoo ci dara ah dem ba daanaka yoon wi kuy foo wala kuy ñàkkee teggin rek ci Moustapha Diakhaté la koy jaare bëgg wax wax ju ñaaw ah ñii nag la ñii te ñii di wax ñëpp ci njaboot gi leen bokk ñenn ñi ñoom daanaka ci eh, eh, mën noona dem ëllëg yàlla tere ba daanaka ilif dëkk bi bu ñu demee ñoom ba seen ay waxante yu ñaaw wax alali àdduna jaral leen ko politique jaral leen ko ñuy yuuxoo di leen ay baat yu kàddu yu teggini wut di jóge ci seen i gémmañ wala ñu leen koy teg te loolu neexut taalibe yi benn taalibe la neexul ñuy ñàgg war ma eh, sëtëb sëñ tubaa waxantuma la ak sëñ tubaa ak ab dëkkam te loolu lépp fii la tàmbale dafa nga ne wax jooju mustafaa Jaxate wax dañ ko waroon a woolu ba mu ñëw ñu laaj ko lii fan la ko teg ak lii muy wax yoonam nekku ci rakk sëñ Muntaxa yi nga xam ne nin bëgg sëñ Muntaxa bu fekkoon na lu nuy la nii rek te amatut folli wala amut kenn ko koy kii dañ koy wax na fi nekk ba àdduna buftu bi wal ah yéene ko koo xamante ni loo liggéey moom nga koy gën loo baax la yow moom nga gën a mën a jox kooku defe nga ne am na dara lu muy wax naa danoo defe ne Macky Sall day jox euh, euh, sëñ Muntaxa xaalis ak Cheikh Bass ñu koy séddoo te joxuñu leen ñooñu xaalis boobu dañ koo soxla ñoo xamante ni li leen sëñ tubaa defal koo xam ne da ngay toog ay mbooloo toog di la xaar kañ ngay ubbi di ñëw di indi xaalis boole ko bu nuy dem di jooy kooku di nga <coughs> di nga xool ab paris xaalis buy jóge ci naa buy jóge ci chef di kii yii yëpp daal ay mbir la yoo xamante ni jar waaye nag lu gën a tee ñaawati nga àgg ba ci yow sa mbokk koo xamante ni xamuloo ko dara nga dikk di wax naa est-ce que waajuram est-ce que nangam jur na ko du xas ci di wax ci ay kii li ngay wax yow seetlu nga ko bu baax a baax a baax seetlu nga ko bu baax. lan moo la ko jaral li ngay wax te dara li ngay wax yow ci sa bopp yaa gën a xam ne li ngay wax du dëgg li nga ci jublu kay mooy yàq deram menacé ko jéem koo yàq jéem a yàq te seetlu leen nag nit koo yàq àdduna mu yàq sa àllaaxira li ngeen di wax daray àdduna jaru teraanga ji leen sëñ Tuubaa defal waroon ngeen koo delloowaat lu bokk lii ngeen koy faye waaw lii ngeen koy faye lii ngeen koy faye bokkut ak teraanga leen sëñ Tuubaa yéen yéen a ngi politique te yéen li lii lépp daanaka ci politique bi la fi jóge ñàkk war ma fi am wala sàgg-sag bu fi am ci politique la jóge waaye jógewut ci taalibe yi taalibe yi ñu ngi fuglu ndigalal sëñ bi ñi ngi déglu ndigalal sëriñ bi guddi ak bëccëg amul dara dara lu ñuy def waaye lu fi sàgg-sàgg wala lu fi sàgg war ma wala lu tax plateau yi am ci télé yi émission yi am palaato yi am jógewul ci kenn lu ci politiciens yi loola nag sëñ bii wax na ko sëñ Cheikh Bass mu yore nee na loolu duñ ko nangu duñ ko nangu loola nag kenn du ko nangu te tàmbaleewuñ ko ci lii nga xam ne mooy ñii fi nekk ci biir ñii nekk ci biir mbir nag bu fekk la Cheikh Ibrahima doon wax ne ñag bi lii raam ci ñag bi la jëm te bu fa jógee bu fa sancee nag waa <laughs> am solo <coughs> daray àdduna jarul daray àllaaxira comme mii ngeen di kii li leen ci sëñ Tuubaa fàggul mënu leen koo jeexal seeni sët mënu koo jeexal seeni sëtaan mënu koo jeexal taalibe yi sax li leen Sëñ tubaa defal xaaju nu ko mën a defal am ki yàlla tombale ak nag jamono nëxa nëx nëx bu bëgg dee nga am kilifa gu mel nii goo xam ne mooy Sëñ Muntaxaa mu defal la daara joo xamante ni yow li nga war a def sa itte mooy jàng ak jàngale Sëñ tubaa bàyyiwu fi ndoona lu gën a rëy jàng ak jàngal Sëñ Muntaxaa tabax université 37 milliards yow nga war a gedd lépp futteeku li nga man ci diine ko jàngale ne naa dem àng dem jàngale ji Hmm? nga nekk ci àdduna xoolal sëñ taxaan ni mu sagale xoolal démb barki démb rek nee na cent millions yoo xamante ni jox na ko cirque xam nga ne cirque foofu ñoonu am xaalis waaye ku nekk xam na ne teraanga ak sa mbokkam jullit mu lott ak sa mbokk yu lott nga jël ko ñaata la nu defal ci mbas mi ñaata la def ci ci ci ci bin fi faatoo ñaata la fi def kilifa gu toll nii war nga ko am ba noppi nag di tuutal sa bopp di ko tuutal